Ce lundi 13 avril 2020, le ministère la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques suivants. Sur 144 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 10 cas contacts par nos services et d'un cas de la transmission communautaire. Sept patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés stable. À ce jour, 291 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 178 guéris, 2 décédés, 1 évacué, Par conséquent, nous avons en ce moment 110 patients sous traitement dans nos, dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte des populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ma defal leen situation bu bés bi tey euh, altine fukki fan ak ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def tey si téeméer ak juróom test yu ñu def fukk ak benn ñoo ñëw nekk positif bond ak ñoom ñoo am jàngoro yi muy fukki cas yoo xamante ne cas contact lañ doon suivre ci suñuy service ak benn kaa boo xamante ne transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne tey juróom-ñaari patient déclaré nañ leen ne wér nañu tey dañ leen génn hôpital ci bés bi ñu leen wax tam ne patient yi nekk ci hôpital ñu leen di faj ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xayma ba mu démarré ba léegi ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn cas la ñu fii ci senegal si ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo si wér ñaar ñoo ci génn àdduna kenn nag ñu évacué bon dëgg mën nañ jàpp ne téeméer ak fukki patient ñu ngi si suñu hôpitaux yi ñu leen di faj